kii doon ànd ak ñun suba ak léegi fii ci Daaru Salaam ñoo ngi nag ci kanam sëñ Abou Mouhamed mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ngeen gis itam sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre ibnu Khadim Rasoul bokk ci ñi nga xam ne nii njabootuk sëriñ Touba lan njabootuk maam Cheikh Anta mu ñëwoon nag doon def si ay ziar kon ñu teewlu kaddu yu tedd yi nga xam ne nii fas yéenaa ko ci kilifa yi tey jii di màggalug Daaru Salaam édition 2024 bisimilah. bokk julli di bokk taalibe bi yëpp ci ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak kaddu yu siyaare jëme ko ci suñu kilifa bu tedd gi di Serigne Abo mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Mamoun ko siyaare bu baax a baax nag tey jéggulu toogaay bi taxam ne ndigale ma taxam ñu def ko ndax sëñ sëñu kon mooy suñu kilifa moo moo moo forcé dogalu ma ci ne ma boo yëg boo toogee ci yëkkati ko la moo tax ma ko def waaye sëñ moo ko mm-hmm. ñu ngi koy siyaare bu baax di teg moo mbooleem njabootu suñu maam ju tedd ji sëriñ maam Cheikh nga xam ne diggam ak sëriñ Touba ñëpp xam nañ ko ci bëgg gu mu bëggoon sëñ bi ak teel ànd ak moom lool sëriñtuwaay itam teel ko delloo njukkal loolu ngeen xam bëgg gi mu ko bëgg euh, la cay firnde it mooy ba sëriñ bi nekkee ci tukki ba ba fa sëñ Modou Lo Dagana demee ba mu gis ko rek la ko wax ne ko waxal ma Cheikh ne ko na jël si ma muy wax ci ci saaxir ak ci lu bare bari loo xam ne mënee su ko wax moom diggam ak sëriñ bi dafa jaxasoo lool dafa bëgg sëriñ Tuubaa sëriñ bu xaaj daana seere ne euh, sëriñ bi ndax sëriñ bi ku ko xam ku ne xam ne ku taqoon ko ba xaal la waaye fu mu ko gisee rek bëgg dégg naa mas ta nekk ci jotaay ndax moom xam nga ni ko yàlla binoon daa doon ko silwise ku am daraja sol garam bu rëy euh, bi sëriñ bi agsee toog ni sëñ bi génn gut mhm. nit ñi niñ baaxoo rek di ñuuramtu ah maam Cheikh Anta li ko sëriñ bi may dafa ëpp mhm. ndax gis xam ngeen colom gi kenn mu koy ñëwee ci sëriñ bi ba sëñ bi ne tëll génn fekk xam naa sëñ bi da doon jox misaal rek ndax moom lu mu fekk wuti du koy xam bi mu noppee mu am mu buublu am néeg ah, ca wet ga mhm. bañ buubee ba noppi ñu xool fu ñu ko war def seexante Anta daal di suñ suñ bi daraay jëm soloon daal ko jëy def génn ko sëñ bi moom de nii rek la la nekkee man lu ngeen ko gis waajtaay bi yëpp de mhm. bëgg lu yëkkati sama jëmm ji rek a tax kon moom ku ku ku ku jeex ci sëñ Tuubaa la mhm. ñibbi si sëñ Tuubaa ñibbi si sëriñ bi ci ci ci ci ci ci gabon itam moo mhm. moo maam Cheikh Ibra ñoom ñaar ci saahir si dara génn leen ca sëñ Maodo maamoon waaye juróom itam xam ngeen dafa am ñaari cër ndax doy na ko sëkkub cër suñ gaawaan di waajuram waaye dafa liggéeyal la sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa almaamuun jooju sëñ bekk ko liggéey sëñ Tuubaa ba laq ngërëmam doonoon koo xam ne itam jamono fi doomi sëriñ Tuubaa yi nekk xam ngeen ne eh, ku ku fekk na fi ko Cheikh Mamadou Fadil dara tàmbale Cheikh Mamadou Moustapha sa laay wax kenn mos ta yëkkati dara ci yoon wi te waxtaanoo ci moom biñ demee ba am na ci ay ndaje yoo xam ne sax fii lañ ko daal di fi ci moom ngir ak dëggoom ak pëstéefam ak waneegum daa wane yoon ginnaaw Cheikh Cheikh Mamadou Fadi dem diggam ak Sëñ Bilaat ñëpp xamoon nañ la ko jëkk sax waaye teewut bi Sëñ Bilaat doonee xalifa xam ngeen mag ñëpp suñ Maodo Mamoun moo leen jox ndigal ne ñëpp nañ jaayante ak Sëñ Bilaat def ci lu bari wane ci yoon mooy lii ñuy def ba nëgëni naka noonu itam diggam ak si Abdou Khadre mu fa jëlale ndax sëriñ bii rek firnde la ci di sëriñ Abo suñu bi xaari di mooy nijaayam di waajuram lépp mu nekkoon xaritam itam du ñoom ñoo ñu gën a jege sëñ bi ndax ñoo bokk moom nekk lépp di lépp sëriñ bi tam bëggoon leen lool te doy leen ñoom rek la daa bokkal aw ñam kon loolu xam nañ ko moo tax bis bii day bis boo xam ne boo duggee ci di ci wax sax day bari ndax tey sëriñ Touba day day mel ne bu sëriñ bi képp moo tànn bis bi ñu ko tegee nattu bi ba nattu bi jeex mu di ko santaay kon demee ni bis bii tey mu waroon nekk Magal Touba ndax mooy bis bi nga xam ne ci la xar kanam yëpp tàlli ci la mooy bisu mbégte bi incha allah rujuux yi ilaa qawmi saadatana wala tag na yow ma jamihil xalqi niraana lii kun bi sa jëw fal fara jëw fal fara lil wara misal na mooy bis bii tey. Mhm. mooy bis bu mag Daaru Salaam bis kon la. Mhm. bis la boo xam ne bisu taarix la. Mhm. ndax mooy mooy bis bu njëkk a màggal ci yoon murit ndax bis bi nga xam ne ci la sëriñ bi te suñ ba xamal ko ne ko wallaahu yad'uu ilaa Daaru Salaam ndax ñëpp një bëggoon bi njëkk ci waaye suñ ba moo ko tànnal fii kon loolu nag la tax mu tànn ko moo xam. kon bisu taarix la bisu màgg la. bis la boo xam ne bisu du waa du bisu waa Daaru Salaam waaye bisu yoon murit la ñu leen di sant bu baax sëriñ bi ci ci turu Cheikh tax Mountakha itam ndax jëf ji ngeen di jëf yoon mur yépp ngeen di soññ mboolem ku ngeen bokkal Sëriñ Tuubaa yéen a ngi koy soññ ci seenu doxin ci ci ci pësteefu taalibe ak jaayante ak doxe ak ak doxe ni ngeen di doxe ba tax ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy jéem ñu ko ñu ko daaw def sax ñu ngi koy jéem léegi te seenu dogu waxtu ne muy gën a yokk ci ci pësteef ak dogu te bu leen neexoon kat. ngeen di ko yemale fii ndax Darou Salaam Touba Sëriñ Touba mosu leen tàggale boo demee ca xasida yi lakka Darou Salaam rabbi wa Touba bari na ci loolu ba ci màggal tubaa gi sax eh, am na ci bayit di xam ba mu koy wax da ngay da ciy dégg ne Darou Salaam taqaloo gi mu taqaloo Touba day mel ni mbir moo tax kon sëñ bi ñu ngi lay bu baax di ñaan bu baax ndax moom yàlla def na eh, ba ñu am juróom-ñett juróom-ñeent dañ fi tàmbalee di fi ñëw di am ay fan ay fan waaye booba mënuñ koo xàmmee jataay bi ñii ñii rek cër bi la ñu mas a jox ba wàcce wuñ sa alxuraan yàgg na kon fii lañ gimmee fii lañ xàmmee ndax boo xawuñ furut fii kon ñu ngi ko ñaanal bu baax jotaay bi mu toogee wutu fi eh, waajuram bi te muy jotaay bi Serigne Touba itam yàlla ko suñu borom gën a dëgëral kàttanal ko ba ko suñu borom defal ci jumaa ji nga xam ne yàlla def na boo fi masaan romb da wax ne fii de yeeyoon na jumaa ju réy ndax dëkk bi suñ Tuubaa njëkk a sanc jumaa warta yees fenn waaye nag suñ borom moom kenn ku ci ne ak lam da dencal ndax da Serigne Touba seerloon ak Cheikh Ibrahima Fati rek ndax xam ngeen ne ci ñi mujj seex la bokk ñu suñ mujj tofoon mbooloo la bokk jaaxal ñeen mag ñi bi ne leen koo xam ne boo séddoo ñëpp fàtt seenu cër doo gaaw a séddoo waaye moom mii itam yàlla bu ko yàlla bu ko ca topp cër bii ko suñu borom defal bokk ci Serigne Touba ñaari yoon waaye ndam bii ko ci Serigne Touba suñu borom defal itam ñu ko ñaanal mu jiite ko lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ba na ko na ko bëggee na nga ko soobee benn gàllankoor bañ ci am salaamaaleykum wa rahmatullah